ak Touba TV ngir ngeen man di jot sunu ay vidéo en temps réel da ngay daal beuf yi ñu bind abonné wu nga daal beuf tous cloche notification bi dënd ak mom rek lepp daal yem. mbokk yi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñuy sétane fu ngeen mëna nekk ci réew ba ci bitim réew ci Touba Mbele TV way leen di abonné wu di and ak ñun sa su nekk di beuf tous cloche notification bi ngir man di jot sunu ay vidéo sa su nekk comme ni ñu koy défé waxtu wu nekk jamono bu nekk jamono bi nekk ku gis fu ñu nekk xamni ñu ngi dëkk bu xel bi nga xamanteni mom lañuy waa Mbéla di village bi nga xam ne Serigne Mahmoudan Mbacke moom Serigne Massamba moo ko sanc tey nag ñu fekk si fii ñi nga xamante ne si ne moo di daayira Ahiba yi Serigne Mahmoudan Mbacke doon amal ab liggéey mu di mbaar mi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw doon ko defaraat pentiraat ko waaye tamit karowaat ko ba mbaar mi gën a yaaññi méngoo ak jamono lool kon bu ko defee ñi nga xam se ne yéen ñuy topp dañuy dugg si biir mbaar mi ànd ñi nga xam ne ñoo doon liggéey mbaar mi mën nañ cee tudd ko ci mel ni jëwriñ soldaaru Serigne Touba mu di Serigne Mari Ndiaye ak mbooleem soppey Serigne Mahmoudan yi nga xam ne ñoo doon amal liggéey bu am solo bi nga xamni doon nañ ko def fi ci bir mbar mi mu di ay karo ak pencaraat ko bamuy yanj kon dañi àndandoo dugg ci bir waxtaan ak ñom ndax tay kat la wara inaugurer li nga xamni se di mi war ko ubbi jeebal ci abi Serigne Cheikh mbake mom Serigne Mahmoudan kon bu ko defé ngeen top ñu ñu barmi siak ci bir mbar mi Cheikh ak ñom liggey bi Mamour jop ci caméra bi mbokki comme niñ leen ko annoncé won sank rek euh, moy li nga xamanteni ci mbar min wara mi ñu war a inauguré tey jii nii ci pencum Serigne Mahmoudan Mbacke ñu ngi ci biir mbar bi nak and ko ak jëwriñ soldaaru Serigne Touba muy Serigne Malick ndjay mu nek nak liggey bu am solo bo xamanteni seen si doon nañ ko amal ñom jamono yi nga xam seen ci ginnaw rek ay wër ci ginnaw lu toll ci wër wala wër ak fan ci lañ amal liggey bu am solo bi mu toll nak ni pentiraan mbar mi waye defaraat karo yi bu mu mucc ayib lool kon tay lañ ko wara immigré inauguré ci abi Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Mahmoudan mu nek nak liggey bu re ñu taxaw ak soldar soldaar ñi ngi lay nuyu waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Amar maa ngi leen fay di nuyu mboolem euh, ñi nekk ci Touba Mbella TV yëpp di sant leen gën di leen ñaan tawfeex Serigne Touba. mu mel ne que ni tey la ñu war a inauguré li nga xamante ni seen moo di mbaar mi nga xam seen a ko doon defaraat at ci ginnaaw yëpp. waaw bisimilah ci loolu lañ nekk tey jii lañ bëgg a jox Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mahamadou Mbacke moom Serigne Massamba la Zamba tey jii lañ ko war a jébal caabi yi euh, di ko liggéey di ko liggéey Serigne waaye di ko liggéey Cheikh Massamba di ko liggéey Serigne Mahmoudan waaye di ko liggéey sunu yaakaar sunu jàmbaar ji Serigne Cheikh Mbacke Mahmoudan mi nga xam tey moo nekk fii ci Touba Mbella toog fi toogaay bi Serigne Mahmoudan tamate te ñu gis ni daara bi bi mu sosoo ak léegi ci ñetti at lay tolloo waaw sant Serigne Touba bu ba mu taxawalee daara bi ak léegi ñetti at la toll waaye daara bi liggéey na fi ne dañuy xam ne lii Serigne jàpp te Serigne Touba rek moo ñu dimbali waaye lii ñu def du suñu njàmbaar du suñu man-man waaye Serigne Touba moo nekk koo xam ne dina nee tàmbali ba may yeggalee kon dañoo tàmbali Serigne Touba moo yeggalee kon dañ ko sant Serigne Touba ba di ko sant Cheikh Massamba. ba léegi tontoo soxla lan mi yéen. waaw mbaar mi tax ñu defar ko dañu xam ne ñun lépp lu ñu am Touba Mbella la ñun Touba Mbella la ñu am suñu amee fukk juróom-ñeent yëpp Touba Mbella lañ ko ndax ki ñu yaakaar àdduna ak alakhir muy serigne Cheikh Mbacke mahamoud mi ngi tuambe la kon ñun luñu am di tuambe lañ ko rënd mbar mi nak tàmbali rek inshallah taala waye ci jumaa ji lañ jëm inshallah tank tànk nekkul juróom-ñaari soro bu ñu bàyyi macha allah jërëjëf jëwriñ ci yu am solo yoy ndax tay mën nañ mën nga ñëw wax budget bi nga xamni manam mo defar mbar mi ndax ku ni ku gis karo yi ñu fi def ni xamni ni la yo xamanteni ci yu cher la waye tamit peinture bi waye tamit ak dimension bi nga xam si ne moom la mbar mi tollu ndax mbar mi wut ndax mën nga ñëw wax eh, li nga xam si ne budget bi waaw bise bi moom alhamdulilah sant yàlla rek am na yoo xam sax mënu nga mënu boole parce que yi nga xam ne dafa toll ci yenn yenn yoo xam mhm. eh, ni moom moom mooy li nga xam ne moom euh, li ñu xam la mhm. noonu la toll te loolu dañ ci sant yàlla bu baax it ndax soppi sëriñ ma xam dañ ci def seen kamtalaay kattan ak mbokki taal bi nga xam ne si yàlla dogal na seen euh, ñaq mën caataa bi ndax ndax lu mel nii yomboon na ci bi ngeen jógee tey en tant que daayira te am na yeneen daayira yoo xam si ne ñoo leen fi jiitu ci biir dëkk bi ngeen jóg rek ni da ngeen di defar mbaar mi ndax yomboon na tamit. waaw yomb woon moom ndax euh, xëy na nit ki da nga tàmbali dara euh, waaye euh, dana metti boo nekkee nag koo xamante si ne nii xëy na amoo pas-pas gi wala amoo positif gi mën ngaa reculer wala nga dellu ginnaaw wala nga découragé waaye Sëriñ Tuubaa dafa biñ ko tàmbalee gisuñu maanaam ñun gisuñu kenn koo xam ne dangay wax loo xam ne euh, lu ñu lu ñu lu ñu arrange ca kanam ku wax daal loo xam ne ku ñu encourage la dañuy déglu loo xam ne encourage la ñun duñ la déglu ñun foofu lañ taxawoon liñ taxawoon mooy fas ko yéene liggéey fas nañ ko yéene yàlla dimbali nañu def nañ ko mat na sant nañ ko Serigne Touba. mu mel ne que ni sànq dama laa dégg ngeen ni ginnaaw pare ngeen ci mbaar mi da ngeen daal di séemu li nga xam ne moo di jumaa ji te jumaa ji moom nekkul lu ndaw. waaw mooy mooy li nga xam mooy li ma la waxee xam nga liggéey Serigne tànk ginnaaw tànk kanam la te ñun ki ñuy liggéeyal xam nañ mooy kan muy Serigne Cheikh Mbacke Serigne Mouhamadan ndax tey jii lii bi ñu koy tàmbali du suñu njàmbaar lépp wax naa ko ci njëlbeen gi du suñu suñu man-man waaye dañu am pas-pas gi ni sëriñ bi lépp luñ ci fas rek danañ ko man moo tax bu ñu paree ci mbaar mi jumaa jee lañ fas yéenee song liggéey bi ab tàmbali la jumaa mbaar mi ab tàmbali la mais jumaa jee ci lañ jëm tànk defuñu ko juróom-ñaari soroor ya ca Touba duñ bàyyi macha allah jërëjëf yéen kàddu ngay tàggatoo ñu lay seetaan. waaw di sant yàlla baax di gërëm suba Serigne Touba waaye di sant nag euh, mboolem Touba Mbella ñi fa nekk tey nga xam ne tey ña fa nekk ñëpp équipe bi yëpp ñëw nañ euh, ñëw Touba Mbella te xam na ne ku ne Touba Mbella TV ni Touba Mbella hmm. kon sant nañ leen ci baax a baax di sant nag mboolem waa dëkk bi waa Touba Mbella gépp ak tund yu ko wër waaye di sant mboolem soppe Serigne Mahamadou Mbacke yi nga xam tey ñoo taxawal lii di leen ñaanal tawfeex Serigne Touba ma sekk juuf ngi ziyaare ñëpp di baalu ñëpp ak di leen ñaan tawfeex di leen xam di leen jox di daje rek ci kanam tuuti insha allahu euh, soldaaru Serigne Touba Malick Ndiaye xam naa du ñàkk ni comme ni mu ko annoncé sànq bi muy jeexal ci ay kàddoom ma sekk la ñuy àndal moom mi nekkoon jëwriñu liggéey bi waaye tamit am nañ fi Assane Ndiaye Baye Fall moom it nekk tamit ci jëwriñu liggéey bi xam naa ñoo lañ dem seeti leen te dellu si waat ba tey mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon ginnaaw bi ñu jeexalee ak jëwriñ soldaaru Serigne Touba mu di Serigne Malick Ndiaye euh, ñi ngi ànd ak euh, jëwriñ Masseck Baye Fall jëwriñ ñu ngi lay nuyu. waaw a baax a ma dalal allah jëwriñ euh, Masseck mu may nekk ni tey ñu ngi ci mbaar mi nga xam si ne moom la war a inauguré ngir jébbal caabi ci Serigne Cheikh Mbacké Mahmoudane ñu gis ni daayira soppee Serigne Mahmoudane yi ñoo taxawul liggéey bi ba pare yow nga nekk ci jëwriñ ndax liggéey bi yomboon na waaw sëñ Omar nag liggéey bi moom xam na ne liggéey bi moom yombul moom waaye nag daanaka sëñ bi moo fi def loxo ndax mën na ne ñu ñuy soldaar yi takkoon di ñëw di liggéey saa bu ñu xëy jëw di liggéey dañuy am cawarte goo xam ne ak kontaante goo xam ne bu ñu ñëw sax man daal mën naa ne sax liggéey bi euh, ni mu ni mu ko ni mu ni mu ko gaawee daal ni mu ko ni mu gaawee daal nga xam ne mbir si doxee sëñ si doxee sëñ bi rek am na si bu baax a baax a baax. te ñu gis lii mu mel ne que ni koppar yu bëree bëree bëri lañ dajalee def ko ci daayira yi mel ne que ni ñu ci nekk taxul ñu am doole loolu am ay koppari poche yu bari yu mën a lim ndax loolu tamit nan nan ngeen def ba dajale ko lu toll ni budget bi. waaw loolu lépp nag sëñ bi la rek ak ak kii Pastef la Pastef la rek ak tamit eh, di gërëm bu baax encore soldat Serigne Touba muy sëñ Malick Ndiaye jëwriñ ndaxte moom moo nekk suñu jëwriñ jiitu jiit bu jiitoo rek li naan tegale bu jiitoo rek eh, ba jub moo jub lool ñu gis ni muy doxee am gëm-gëm beeg ak bëgg Serigne Touba bi ak ni muy doxee wax dëgg yàlla ñun noonu rek la ñu mën a def man naa ne nag li ne moom koppar di fi ne moom ku koy xayma moom wax dëgg yàlla ku koy xalaat di ko ma doo euh, doo ñemee pour song ko. Hmm. waaye nag nga am gëm-gëm beeg sëñ Touba rek moom moo ko koy defal rek lépp moom moo koy defal wax dëgg yàlla. daara soppee sëñ Mahmoudane ndax mën nga ñëw déy seen projet. waaw projet bi dégg nga wax ne moom projet bi moom incha allah mu ko di ko wax nii. Hmm. yaakaar naa fii ba ngoon mën naa ko lim ndax suñu mébét ak li mu bëgg nii. Hmm. mën na ne lépp luy yëngu Touba Mbella. Hmm. ñun fas nañu yéene soppee Serigne Mahmadan dinañ ko liggéey. macha allah incha allahu rabbi ànd koog suñu jëw di sondaar Serigne Touba. waaw lépp luy yëngu daal loo xam ne daal luy loo xam ne si bi ko soxla daal muy jëm ci ci yoon señ bi ñun dëre señ Mahamadan soppé señ Mahamadan bëgg nañ mu nekk ci kat nekk sa jiit euh yeen kaddu ngay tàggatoo ak tamit yeen kaddu ngay soñé mbokk yi nga xam seen wa encore di di di leen gërëm yéen Touba Mbella TV di leen gëreem bu baaxa baax di contane bu baaxa baax di gëreem soldat señ Touba ak ñoom mamadou Ndiaye Baye Fall Assane Ndiaye Baye Fall ndax man na ne soldat yooyu ñoo daanaka ñoo nekk ci liggéey bi di gëreem euh, soldat soxna mam Faty Ndaw macha allah maam Fatou di ziar bu baax soxna Aya ñoo ngi koy ziar bu baax a baax sunu yaay booy soxna Fatma ak sunu yaay booy soxna Dial ñang ñu leen di ziar bu baax a baax soxna Ndey Seck macha allah di leen gërëm bu baax lépp daal boo ko lim daal wax dëgg yàlla suñu Omar mhm. moom daal moom daal <laughs> tawfiq kontaan xol daal kontaan nan bu baax a baax a baax macha allah rabbi di am mbégte bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla kontaan bu baax a baax si yéen macha allah euh, jërëjëf jëriñ ma sekk xam naa sëñ Assane Ndiaye Baye Fall la ñuy wëri su ko defee daal di àndaat ak moom ci jotaay bi Mamour Diop moo mbokk yi nga xamante ni seen comme nañ leen ko annoncé woon ginnaaw bi ñu jógee ci jëwriñ Baye Fall ma sekk Diouf Baye Fall ñu ngi taxaw ak sëñ Assane Ndiaye Baye Fall xam naa <laughs> moo gën a neex euh, jëwriñ Assane mu mel nekk ni mbaar mi ñu ngi fi tey war a mooy jébbal caabi Serigne Sam ko liggéeyee ba pare euh, ban yëg-yëg nga ci am ah, wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu jox seen wàccuwaay di leen ñaanal tawfeexi Serigne Touba da di ko sàkku ci yéen mu mel ne liggéey bi ñu doon liggéey mate na tey jii nag lañ fas yéene jébal ku tedd gi Serigne Cheikh Mbacke caabi yi ah, di ci am mbégte lool nag di ci am mbégte lool wax dëgg yàlla di xamal ne nag mboolem taalibe yi daal li ñu doon liggéey daal mi ngi nii daal tey jii daal lañ fas yéene jébal sang bi tedd bi Serigne Cheikh Mbacke caabi yi ah, di sàkku teewaay waa dëkk bi yëpp nag waaw mboolem daal koo xamante ne si daal yaa ngi ci tund wi ak li nekk ci waa dëkk bi ñëpp ñu ngi leen ci woo macha hmm, allah jëriñ Assane mu mel nekk ni ci nuyoo hmm. waaye mu mel nekk ni daara soppe Serigne Mahmoudan. waaw danoo gis ni bi mu sosoo yàggul ba pare am naal yoo xamante ne si ne. Hmm. maanaam dafa yéeme daal dafa jéggi dayoo. yéen jiwee ñi loolu ban rôle ngeen ci def ban liggéey ngeen ci def. ah lépp daal lépp daal jëwriñ la rek bàyyi sëñ Malick Ndiaye jëwriñ daal daanaka daal lépp moom la ñun moom amuñu lu sikkim lañ rek waaw foofu ñu wax rek ñu jëm fa rek foofu la ñuy jëm ñun waaw wax dëgg yàlla daal lii lépp daal yéene la ak passeef rek ak bëgg waaw moo waral lii Touba Mbéwél ki soppe sëñ Mamadou moom bi ñu commencé yaakaar naa ci ñetti lay toll gën ngaa bari waaw kon bu demee nii nag yéene ak ngëm-ngëm ak positif rek moo moo waral lii lépp loolu lépp daal lii loolu rek moo ko waral ndax daara soppee sëñ Mahmoudane yi mm-hmm. maam ñoom ban sosoo ba léegi mm-hmm. dañoo nekkoon di dajale seen addiya bañ a siyaare a li ñuy dajale mm-hmm. dañ koy dem di ko yóbbu ko ci sëñ bi jox ko jox ko def ko chaque année buñ ko tamaxarete ba mu am ba ca suba ga dañuy dem siyaare ji sëñ bi li ñu dajale lépp ñu yit ko lii nag moom ci baaxu sëñ Tuubaa rek ak ak jëwriñ sëñ Malick. Mhm. moom daanaka lépp moomu sax lépp moomu. waaw lépp moomu. macha allah waaw macha allah. Euh, jërëjëf Baye Assane ban message nga am ban kàddu nga xam si ne maanaam yónnee ko ñi nga xam ne ñi ngi bokk ci daara nekk ay ndaw tamit ñu war a nekk ay royukaay ëllëg. waaw comme nii rek moom mbir mi moom mbirum Serigne Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am waaw moom ñun dañuy yéene rek Serigne Touba mooy matal lépp waaw ñun moom dañoo am yéene rek lañu am nag lépp Serigne Touba moo koy matal waaw nag ñu ngi sàkku ci mboolem taalibe yi ñu nekk ci daara ji ak ñi bëgg a ñëw ci daara ji ñëpp ñu xam ne moom mbirum Serigne Touba moom moom da sëñ bi dane defal ma loo loo loo li nga man ma defal la loola jomb waaw ñun nag lii mën nañu jàpp ne dañoo duñu jomb la waaw ndax du suñu man man du suñu posté ndax ñi ko yàgg bëgg pour def ko lu mel nii yàgg na trop bari na trop politiciens yeeg ñëpp ku ci nekk jéem ko waaye boobu mu sotiwut ja yàlla nag moo ko dogale ci soppe sëñ Mahmoudane nag ñu ñu am ko ñoom amoon kon nag lañ koy sant Serigne Touba di ko sant Serigne Mahmoudane di ko sant Serigne Cheikh Mbacke mi nga xamante ne si mooy suñu wasila moom lañ yaakaar tey ëllëg waaw mu euh, ma nekk ni euh, Baye Sane xam naa kon lañ lay tàggu foofu. waaw naka nga gisee liggéey waa Touba Mbella TV. Touba Mbella TV moom xanaa cant ngërëm rek lañ leen amee moom ndax ñoom wax dëgg yàlla bañ commencé ba léegi seen lépp dafa dafa rafet. waaw muy fii ak fépp fu mu a doon rek ci réew mi rek xew-xew bu mën a doon xew-xew diina bu mën a doon seen taxawaay gis nañ ko fa. ñoo leen ñaanal tawfeex ak taysiir ak yokk ba yëkkoo ci barkeb Seexul Xadiim. waaw. jërë Gini ci kër sëñ Mahmoudan gi di ñëw noonu gis ngeen ko and ko ay rakam and ko ay njabotam ñom ñëpp andando ñu ci rañé bu baaxa baax masamba, Massamba suñu xarit mom ak njaboot gi yépp sëriñ baye non di dugg ci sering non di dugg ci soldaru sëriñ Touba sëñ malik gis ngeen ko mu ngi non di nuyu bi mu ngi non di nuyu bi dama doon siyaare Serigne Cheikh Mbacke Mahmoudan euh, moo nekk noonu di dugg si euh, mu ngi noonu di dugg si mbokk yi ngeen di ñu ànd ak ñun ci Touba Mbella TV en direct ngeen gis Serigne bi ñu ngi koy won liggéey bi euh, di ko won liggéey bi mu nekk liggéey bu am solo lool gis ngeen ko. Euh, di fàttali rek ni ñu ngi ci inauguration mbaarum Touba Mbella mi nga xamante ni si ne soppee Serigne Mahmoudani ñu ngi doon amal liggéey bu am solo defaraat euh, mbaar mi seen Serigne bi moo nekk noonu yegg Serigne di waxtaan ak euh, jëwriñ soldaaru Serigne Touba sëñ Malick Serigne bi moo nekk noonu. جميل المعين ساقي الهجاج مبار معاص بكل قريب زيم بكاس بقرب الذي يدرس به الغنى ñoo ngi nuyu mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yi di jaaral ci nuyoo bi sunu xalifa bu tedd bi sunu kilifa gi sunu yaakaar ci sëriñ Cheikh Mbacke Mahmoudan di ko ñaanal yàlla guddal fanam ta te wéral ay cëram ba naali mu naa liggéeyal maam ja Cheikh Massamba naal ko liggéeyal waajuram ba sëriñ Mahmoudan yàlla may ko kàttan bu mu ko yeggalee dañ ànd ko moom tam ànd ko mboolem rakkam yi ànd ko mboolem ko di sëriñ Tuubaa ñu ngi koy siar baax di siar mbolam talib teew di siar sëriñ Fallu diko ñaanal tawfiq sëriñ jili abdou khadim mbokk yi talib yépp rek ak kilifa yi bayiwuñu kenn di sant yalla bu baax ci ndaje mi waye di jéggulu sëriñ bi ci déplacement bi ndax suñ ñu ko def taalibe sàpp ko mooy ñu daje fi mu soññ ñu soññaat ñu gën a suñu laxasaay rek lañ jublu ndax ñun ay taalibe rek lañu ay donga lañu donte matuñu ay taalibe waaye fas yéene nekk ay donga fas yéene di ko liggéeyal ba keroog ñuy faatu yàlla na yéex lool te mbàkk nga yàgg fi ndax damay wax saa su nekk ni fu waay mën a nekk liggéeyal Serigne tubaa moo gën looy mën a def ndax fu waay mën a nekk it liggéeyaloo Serigne Touba da nga mën a liggéeyal Serigne Touba ni may def rek mooy di soññ mbokki taalibe yi di soññ mbokki di soññ baax a baax ñi nga xam ne sañ naa leen a soññ ñu saa ci liggéey sëñ lii nag sëñ Mbàkke ak tàmbali si ñoom ndax biñ koy tàmbali dañu woon nañ tàmbali rekk sëriñ bi mooy yeggale waaye biñ ko tàmbalee sëriñ bee ko eggale ndax biñ ko tàmbalee ak fi mu eggee lépp ci fukki fan ak juróom-benn la tool kon loolu ndimbala sëriñ bi waaye du ñoom seize jours ci lañ ci lañ liggéey lépp mu pare kon loolu dañ koy sant sëriñ bu baax a baax ndax ak jàpp la bu loolu jàllee ñu sant ñi nga xam ne tey ñoom la ñu àndoon di liggéey muy soppee sëriñ Mahamadan Mbàkke yi nga xam ne sëriñ Masek Diouf mi ngi ca bopp ba sëriñ Modou njaay Baye Fall ak Assane njaay bu tuddee góor yàlla yooyu rek soxna yi soxna maam Faat Ndaw moo leen jiite ak euh, soxna maam say Saw ñoom it ñoo jiite soxna yi kon bu ñu tuddee ñoom dañuy yóbbaale ñëpp. ñu sant leen bu baax ñu sant mboolem wa dekk bi di sant mboolem li war dekk bi ah liggéey bi nak mbàkke mu ngi ni soppe yi def nañ seen camp lay katam japp nañ ci am nañ ko liggéey nañ ko leer lañ ci doon muy ak tàmbali suñu nak ndax waxna ko sank ci eh, waxtan na leen li ak tambul la waye suñu yéene ci tuba Mbélla la tànk jumaa ji nekkul juroom ñaari soro duñ bàyyi ñun suñu yéene fofu lañ jëm lu ñu am tuba Mbélla la lepp lu ñu yaakaar fu ko faré tuba Mbélla lañ fassiyene indi te suñu yëri tu ambelé mënuñu wax fan la yam mënu ñu fan la tambalé mbagal yi ñaan yalla nga fi yag yalla nga wër ñun luñu am yow la luñu ñak serigne touba xam dañ ñako jox ndax ñu dara ndax ay talib serigne touba lañ te ay talib du ñak dara kon nak kep ku and ak ñun rek ñi lay soñ nga takka la laxasay ndax biñu liggéey li am na ño xamné seen kër dañ ko tej muy ma sekk ju fa bàyyi faal ak asan dañu tej seen kër ñëw tok fi di liggéey ba liggéey bi jeex kenn wu ci ñu sant sant bu baaxa baax baax moom daal suñu yéene moom mooy sëñ bi liggéey dëkk bi rek lu ñu am dañ ko liggéey dëkk bi ñi ngi jégalu si kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sëriñ bi noo lay nuyu bu baax di la siyaare dina jox sa cër bu baax bi yàlla jox te ñépp jox la ko di ñaan yàlla guddal saw fan te dolli sag wér di nuyu mbooloo mi fi nekk yépp buñ jiitalee sant yàlla ba noppi delloo suñ bopp ci sëriñ bi fedd di taalibe gi noo ngi sant noo ngi sant mbooloo mi nga xam jep ñoo jëf jëf ju jëf ju rafet ji ju mat sakk ji ju ànd ak pasteef ak yéene ak takku ak dogu ak wóolu sëñ bi ak bëgg ko ñii de buñ nee say sopp soppee sëñ Mahmoudan la ñépp danañ ko nangu te sopp sëñ Mahmoudan mooy sopp kii ko fi nekkal ndax léppam daf ko jeexal ci sëriñ bi yéen dem ngeen fab seen lépp jeexal ko ci sëriñ bi kon ànd gi day mën a rafet eh, noo ngi leen di sant nag ci jëf ji ndax ñëpp ngeen ko jëfal ndax sëñ Mahamadan amutum noon ñëpp a ko bëgg waaye nag ràññeeku ngeen ci ràññeeku boo xam ne gii mënee su leen a ñàkk a sant ndax nun ñii kenn ku ci nekk mel na ni jëf ji yow dong nga ko jëfal kon noo ngi sant ñi ci bokk ñëpp képp koo xane kii dox na ci jéego walla mu def ci alalam wala mu taxaw ci ci wax ak jëf ak yéene ak taxawaay lu ci mën a doon rekk sant nañ la bu baax gërëm nañ la bu baax ñoo njaboot gi yëpp noo ngi ànd nekk ci ginnaaw sëriñ bi di leen jottali cant goo xam gii noo ngi koy tibbe ci ki tax ngeen boole seen bopp muy Cheikh Mahmoudan jëme ko ci seen jëmm yi di ñaan lépp ku ci ku ci taxaw ku ne yàlla na ko yàlla def defal pajuk aajo zahiran wa baatinan defal ko pas-pas bu dëgër ci taalibe te fedd di pas-pas bi tey àggale seen yéene fi ngeen yéene àgg ngeen àgg fa ndax xam nañ ne lii bidaaya yàlla boo xam ne bii xam nañ fa mu jëm waaye nag yàlla ngeen fa àgg tàgg fa ci seen sago ak man ak tal yàlla dolli leen kàttan bu war bu bari dolli leen wér gu yaa gu yaatu bu ngeen mën a jëfale sëriñ bi ndax ab taalibe day am ak ak ak wér ak fekke lu am solo la lu ko mat a la koo xam ne kii buñ santaanee nga def buñ santaanee nga seet lu baax nga di ko def buñ diglee nga def buñ teree nga bàyyi a ah, kooku day boobu fekkee ak wér dafa baax ci moom ak am nag yàlla na yàlla defal ci poos yi ay ci jiba yi lu ngeen liggéeyale sëriñ bi ndax ginnaaw bu ñu jee ngeen joxe fu ñu laajewut ngeen seet lu baax ngeen di ko def wax dëgg yàlla loolu mu mu waaw kay kon nag euh, kàddu googu rek daanaka mooy yeexal samay wax bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp bàyyiwuma kenn góor ak jigéen mag ak ndaw di jaaral nuyoo bi ci njaboot Seex Muhammadan gi fi teew nga xam ne lu ñu defal sëriñ Mahmoudan ñoom lañ ko defal kon sëñ Malick ñu ngi lay sant yow itam bu baax te la gërëm bu baax ndax xalaat mbooloo man cee lëkkaloo ba ànd ba lëggeel sëriñ bi lu toll nii sant yàlla rekk ci war te yow it nga sant yàlla bu baax ndax bari na ku woote duñ la wuyu waaye bu fekkee boo wootee ñu wuyu la te boo jëfee ñu gis la nga ca jëf lol dana tax ñepp gëna mëna gor gor dana tax ñepp gëna soñ lolou loolu fall wax rek moy deug ah, lepp lu way def ci béréb bii sëñ Mahmoudan nga ko defal kon lolou xam nañ ko ñepp fa tabarakallah ma di len xamal ne yit mom bi muy sos mbolo mom dafa ñew wax ma nim ko bëgg tuddé mané ko daal lima gis mu gën daal tuddé ko soppé sëriñ mahamoud rek ndax boo ko tuddee soppay sëñ Mahmoudan ñëpp a ngi ci biir ndax ñëpp moom sopp nañ sëñ Mahmoudan ñi jébbalu ci moom sopp nañ ko ñi jébbaluwul ci moom it sopp nañ ko kon ñëpp a ngi ci biir lool rek kon nag tuddee ko noonu ah boobaak léegi mi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo <clears throat> bii nag mooy bi ci gën a feeñ dafa am bis mu ñëw ne ma daal dama am yéene mbaar mi ma karle ko ba mu àgg penturaat ko ne loolu de boo ko defee da nga def lu neex sëriñ bi moo jox ko ci ndigal mu nekk ci defe naa matul fukki fan la fukki fan ak juróom la ko la ko liggéey dañ ko liggéey ba mu mel nii mu mel loolu ñim ko bokkal ak ñi ko doon liggéey te daanaka seeni àq sax ñoom jéemuñu koo jot dañoo bëgg def ko ci biir liggéey bi rek ñoo ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen soññ bu baax itam di leen xamal ne man amila saalihan fa li nafsi yi lépp lu waay jëf ci lu baax yaa ko moom kenn moomu ko ki ko jëf moo koy moom te yàlla du fay itam kenn ku jëf du jël jëfi kenn nit fayee ko jëfi keneen du am mukk du jaawale jëf ak moroom kese boobu ñuy nettali sëñ Fallou mën nañ koo seere fii waaw dafa def la woon sëñ Modou Seng ak gaal goo xam ne dañ cee def yi yëre kenn ku ne def ci yëre yu mag ba ñu boole gaal ga yëpp indi ko toog fi moom mu ne ko la ma santoon de def naa ko mu ngi nii ñu ubbi gaal ga bu génnee mbubb ne diwa ko joxe génne mbubb ne diwa ko joxe di ko def di ko def bëgg mbubb bay jeex tàkk ne ko waaw ana nag loo ca def mu ne ko ah xanaa ñu ñu def ko bon daal di bëgg a sumb bu moom yoroon def ci mu ne ko déedéet ma tewu ko dama lay xamal ne rek ki soññee moom am na sax pay waaye nag jëf itam jëf ju nekk suñu borom da koy fay ka ko jëf rek loolay tax kon loolu ñëpp xam ko lu ñuy defat ci lu baax lu ñuy góorgóorlu ca ànd ca doxal ko ba mu àgg man man man man kenn mën naa bañ a jëf ngir man waaye na ñëf ngir sëñ Mahmoudan mi nga xam ne moo mat a jëfal te moom lañ bëgg ñu ko moom lañ bëgg itam lépp lu mu nekkoon ñu nekk ca bañ caa soppi dara nu mu doon doxee ñu doxe noonu bañ caa dara loolu mooy sunu bëgg-bëgg mooy bés bii nga xam ne nag ci lañ koy ubbi tey jii ñu ngi la ci ñaanal yàlla di ñaanal ñi nga ko bokkaloon di liggéey yàlla dolli leen sutura dafa leen tawfiq dafa leen xeewal te yokk seen wërsëg ba la ngeen yéenee def lépp ngeen mën ko lii mel na tàmbali la yàlla na dem ba àgg ci lu gën a kawe yi yëpp yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ci biir loolu du ma ci mën a ñàkk a tuddaale sëriñ Cheikh moom sëñ Ahmadou Mbacke moom itam lu mel nii rek lay def jumaa ji mukket yi fi nekk moo ko fa moo ko moo ko wax ak njaboot gi ñu ànd ñoom ñëpp ba def ko kon yu baax yi noonu lay demee ñiy def yu baax ñi ngi def yu baax waxtu wu ne kuy seetaane da ngay seetaan ba mujj nga ñeetaan rek te du am njëriñ lu ñuy def daal buñ la waxee la nga ca man def ko ca boo moo ko loo ci mënul dara nga nga seet la ngay man nam toll nga def ko ca ndax jënn jëf du réer ki def lu tuuti te kattanam di lu tuuti loolu la man ki jëf lu bari te am kattanu def lu bari loolu la man kon lol nañ ci lu bu baakha a baax man de bi mako waxe dama ne ko dana la jox tonu ciment bo xamne na ko jox nga andi ko def ko ci ndax ndax jef ju tol nonu man duma ma nangu kenn def ko te bokuma ci lolou kon moy doxi ni ñu ngi lay gërëm malik ñi ngi lay sant ñi ngi lay soññ ñi la ñaan nga sant yalla bu baax te xamne ku yalla may xolub jef lu baax da da da da la nga bëgg lepp man nga ko am yàlla na ci yàlla dolli la suutura bu baax dolli képp kuy sàkku def lu baax suutura defal ko tawfiix defal ko xeewal ba leen yéene lépp mën a am ndax bu fekkoon kenn ku ne danay xool lu mu mën ci dëkk bi mu di ko ca def dëkk bi weesu na fii bu yàgg waaye nag ku ci jéem di xalaat nab na bi loo ca def rek suñu borom dana la ko fay yal na leen yàlla fay defal leen tawfiix ak taysiir liggéey baa yow yoon waa ngoog fii dox jeexagul waaxu sëñ du wees dañ góorgóorlu bu baax ñu def faatee bu sel ak ayatal kursi ak pàllaxe ak naasi ñaan yàlla ñu béréb bi yokk bu baax ba àgg fi ñu ko bëgg àggale te lépp luñ fi jàng mbaa ñu ñaan ko fi yàlla ko suñu borom nangu te jotale ci mbooleem ku ca bokkoon mbaa ku ca sa loxo duggoon ba mu mat sëkk ñoo gërëm ñëpp di sant ñëpp bis bii ñu ko defee nag bisu sëñ Mahamadan la boo xam ne fii bu ñu fi jógee ci ngoon gi ngoon yi danañ fi ñëw def fi waxtaan yu baax ay lépp aju ci sëriñ bi bu ca suba saa danañ fi dajewaat santante ci njaboot gi kon béréb la boo xam ne ku ko defar defaral nga sëñ Mahmadan ku ko defar defaral nga nu ko noonu defaral nga ma ko man mi nga xam ne itam man la lépp war te donte mënuma lépp itam waaye kon defal nga ma ko maa ngi leen di gërëm di leen sant di sant góor ñeeg jigéen ñeeg ñëpp yal yàlla fay leen ñu def faati ay ak ayatal kursi ak lixlaas ak fàllaxeñ ak ak waaw fatiha la ñuy def ak ayatal kursi yi ak fàllaxi ak naas yi tëje ko salaatu ala nabi ñaan yàlla def fi barke bismillahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin الله لا إله إلا هو لا تأخذ سنة ولا نوم ما في السماوات ما في الأرض من صلى سيسمعه ولا نعات ولا ولا يوم يحسن ولا نوم حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعصم من الفلق من شر ما خلق من شر حاسد إذا سبق من شر النفاسات في القدر من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعصم رب الناس ملك الناس إلا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لهم يوم فيها سواء دموت فيها سواء الحمد ربنا لو وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وقدمه بالقسط وكسر ba lislaam sosoo ba léegi gis ngeen que ni lépp lépp lu ñuy def lu nekk jigéen ñi dañ ci am wàll te dañ ci am doole lool am ci jom bëri ci jom lool macha allah rabi ba tax ñu toog ak euh, ku ñuy wax soxna Maam Ndaw nekk présidente soxna yi mu di soxna yi nga xam se ne ñoo nekk ci daayira Ahibaay Serigne Mahmoudan moom moo leen jiite waaye tamit ak sunu beneen yaay boo xamante ne si ne sunu yaay soxna eh, soxna Maam Say Sow nga xamante ne si ne moo jiite soxna yi nga xam se ne ñoo nekk fii ci biir Touba Mbella nga xamante ne si ay jàmbaar ñoomit toog nag ak ki nga xamante ne si ne moom mooy mooy mooy yaayu seen bi muy aya nga xamanteni ci ne nek euh ku yalla baxal ci traay yi xamna lolou seigne Mamour Diop dana ci ñew soxna Mame fat Ndaw lañuy ñuy door rek waxtaan wi soxna Mame fat ñi ngi lay nuyu ñong lay fay euh, naka nga gisee jégal micro bu baax wa ah, ñong lay fay bu baaxa baax euh, naka nga gisee li nga xamanteni ci ne modi di inauguration bi nga xam si ne yéen ko doon def jëmele ko ci mbar mi kon onze pila bismillah alaykum wa rahmatullah ñong ngi nuyu ñep sant ñep di gëreem ñep di rafetlu sha allah ci mbaar mi tey indigré gi ñu ko def mu doon lu am solo di ci santaal yàlla bu baax nag di ci santaal suñu sëriñ sant yàlla bu baax di sant jawrin yi nag di sant jawrin bu baax a baax di sant mbollem kep ko xane yaangi bok ci soppe Serigne mahamadan Mbacke rek ñong lay nuy di la sant di soxna sant soxna Wala Mbacke nak mi nga xane moy dom Serigne mahamadan ta andor ak ñun liggéey bi ñong koy sant bu baax di sant Serigne Cheikh Mbacke mahamadan ak jabotok Serigne mahamadan gep nak ndax liggéey bi yomon na ci yeen soxna yi di ci def ran baam ndax li ay karo la di oyof waaw ton waye ñun mom dikk dana yomb ci ñun ndax ñun taalibe Serigne Touba rek liggéey rek mo ñu ñor motax motax moo dana yomb ci ñu jé amuñ ci ben jafé jafé lan lan lan ngay soññi soxna yi nga xam se ne leen jiite ñu nekk ci biir euh, daayira bi di ay baay Serigne Mahmoudan ah albaay yi sax ñoo nekk ñu takkaat seen i laxasaay góorgóorlu bu baax fas ba abadan loolu rek laa bi dafa am solo am njëriñ te lu ci waay jëf rek koy defal lan mooy seen mébét lii sëñ mébét xanaa suñ paree ginnaaw defar ngeen mbaar ba pare waaw wala ci mbaar rek xalaatuñ ko ñun su mbaare paree il faut dañ defaat beneen sorol ba mat na juróom ñaari sorol yene Touba fasaat nañ ko yéene def ko ak liggéeyal kër Serigne Touba gi nga xam ne commencé woon dañ ko fii bëgg nañ ko yeggale moom it bu poow paree ñu jàllat feneen rek ñun ko àgg rek ñu jàll feneen macha allah waaw macha allah eh, jërëjëf eh, yaay booy kon dañuy jox eh, sunu yaay soxna maam say sow moom mi nga si ne moo jiitee soxna yi nga si ne ñoo nekk fii ci Touba Mbella yaay booy ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay Euh, dila la wax nga nuyoo ak mbokk yi nga xam si ñoo ñuy seetaan ci Touba Mbéll TV tey ñu doon amal inauguration bi fii yow nga jiite soxna dëkk bi noo ko gisee. asalaamaaleykum rahmatullah soppee sëriñ Mahmadan ñu leen nuyu te di leen siyaare di rafetlu kàddu fi jaar soxna maam Faat na wax ne waroon wax lépp wax na ko waaye ñu ne bëgg nañ tey kontaan nañ ndax def nañ ko ko ta defal nag sëriñ Cheikh Mbacke Mahmadan ndax xolam sedd na tey tax bu xolam xol dana sedd la lépp moom la ndax bëggoon nañ koo def waaye amuñu yoonu ko defee mu sàkk yoon wi ne ñëw leen ñu liggéeyal ma Mamadan liggéeyal sëñ Cheikh Mbacke te ko kenn du ko liggéey bu réccu ko kenn liggéeyal sëñ Cheikh Mbacke réccu ko rawatina bàyyam bu tedd ba sëñ Mamadan Mbacke waaye lépp maa li na koy sant ndax suñu xel nekkoon na ci waaye amuñu yoonu ko defee ak doole juñ ko defee kon nag maa ngi sant. Euh, noo noo noo gisee liggéey bi yow bi nga bi nga dégg bi nga njëkkee dégg ñu annoncé ni euh, daayira Ahibahi Serigne Mahmoudane dañoo fas yéene karo mbaar mi nga xool mbaar mi ni mu yaatoo ak dimension bi ak karo ni mu seere. ah bi ko njëkkee dégg di ko rafetlu rek nag tiituñu nag mosuñu cee tiit benn yoon mosuñu cee jaaxle. moo yaakaar ni mbaar buñ ko tàmbalee du yegg ak yoon. buñ joxaadoon lépp li sañu def ko buñ joxaadoon lépp li sañu def ko ndax ñun ay taalibe yi sëñ Cheikh Mbacke la suñu dara du tardé buñ joxaadoon li sax ëpp li ñu song ko def ko daan ko ñu lu mu waaw ndax taalibe sëñ Cheikh Mbacke lan yaakaar sëñ Cheikh Mbacke mooy sunu mooy sunu yaakaar tey ëllëg est-ce que amul secret bu ngeen denc di ko di ko nit ñi ah yéen daara bàyyi sëñ Mahmoud amul benn secret bu ngeen denc xanaa yaakaar sëñ Cheikh Mbacke rek talal ko loxo mu ñaanal te mu ñaanal day dal yaakaar sëñ Cheikh Mbacke rek denc ñu dara nag xanaa sëñ Cheikh Mbacke denc ñu dara ëllëg dia xanaa bu lu ne def leen ko rek ñu def loola ba def la ko pokay bi bii nag la ñu kopp lool sax. sha allah loy wax sa mbokk soxna yi lay seetaan. sa mbokk soxna yi di len gërëm di len sante di nuyuwaat Touba Mbélék yëpp na boobu ma kenn goor jigen mag ndaw ndax ma len jité te ma gëna xébu ci dëkk bi jël ciir bu tok ni ci ko sama loxo. ñu neexa jité lan nak ndax mbolem soxna su ne ci dëkk bi saw ñaqan ci ma leen ko waxee dañ ci koo rafetlu lol sax sawar ci lol te rafetlu ko ñepp ko rafetlu xat-xati magal gi rek tax ñepp na a ñëw ci inigré bi ñu sante ñepp ñëpp di leen gërëm. sha allah jërëjëf euh, suñu yaay boy kiñ toogal nag moom ayaa la moom ayaa ayaa nag moom di nga wax moom yow maa lay teel micro bi yow moom da ngay bàyyi teel micro bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. mu mel nekk ni tey nga ñëw fekkee li nga xam si ne mooy mbaar mi waaye xam na sa pas-pas waaye tamit ak maanaam euh, bi nga gisee mbaar mi nga bokk ci daayira Ahibahi Serigne Mahmoudan ngeen nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu àdduna di bàyyi xel la ndax ku def lu mel nii kon mën naa ne tey àdduna ñu ngi lay bàyyi xel ban message nga wala yan kàddu nga am yoo xamante ne yaa ngi koy dolli mbokk soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ànd ak yéen liggéey bu am solo boobu. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal sëñ Cheikh Mbacke Mahmoudan yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ah ñun de liggéey bi biñ ko déparé moom tiituñu si dara dëgg la na biñ koy déparé yoruñu dërëm moom ñiko ñun ñiko jité won biñuy départ yoru ñu yoruñu ñaar dërëm xana yaakar serigne Touba rek ak japp ni tamit serigne Touba ay mbiram mom da ngay bëgg rek mom yow yaay bëgg rek bu fekkee wolu nga ko ndax bo yaakaré da ngay wolu ñu ne dañu boore yaakar ak wolu té ñu am way bu dëgër muy serigne Cheikh Mbacke mahamadam kooku luñ ko laaj bam jox ñu si digal rek jàpp ni loolu day sot wa motax nak bam ñu joxé digal ñu am xel mu dal ndax bo xolé fi nii mbolo ñoko waron liggéey mais ñiko liggéey matul 6 personnes te deful 16 jours 16 jours la def te matul 6 personnes ñi ko liggéey kon xanaa loolu liggéey Serigne Touba moo neex. xanaa ñoom dañ doon liggéey ba bëccëg. déedéet sëñ Mahmadan moo leen teel seen i tànk seen sëñ Mahmadan moo leen teel seen i tànk ñu koy liggéey billaahi li boo ko xoolee da naan mbooloo ñoo ko liggéey ñu ko liggéey ñu juróom benni nit ba pare tëj seen kër nag fayeeku ñaar dërëm fayeeku ñaar dërëm te heure bu ñu xëyee dañuy joxe dépense. xanaa kon loolu sëñ Touba rek moo ko mën. waaw loolu la nag moo tax nag bu dee leneen mi ngi fi dañ koy def ñun li ñuy fas yéene mooy lépp lu jag sa dëkk bi mu jógee ci ñun ñun ñu defar ko ñun soppee sëñ Mahmadan te yéene boobu lañ am dañ koy def bu yàlla. moo tax yéen ngeen am yéene boobu ci dëkk bi yéen am na ñeneen ñoo fi nekk te ñoom dañoo bëgg a jëf yéen bu ngeen jëfee lépp léegi ñoom li ñu jëf ñoom. ah ñooñu am nañ yéene bi waaye pas-pas bi moo fi nekk ndax mbaar bi ay borom million taxaw nañ pour defar ko mais suñu yëf la ñun la doon xaar sëñ Mahmadan ñun la ko dencaloon waa soppee sëñ Mahmadan wax dëgg yàlla am na ñu amul yéene bi nag de yor ay millions taxawu ñëw pour defar ko waaye en tout ñun biñ koy defar yoruñu 500 francs nekkul suñu poos biñ koy préparé waaye sëñ bi moo ñu ko defaral ñun daal du ñun sëñ bi la waaw lépp sëñ Cheikh Mbacke Mahmadan. macha allah ban kàddu ngay am nag boo xamante ne si ne yaa ngi koy soññeewaat di ko dénkaat mbokk soxna yi. ah xanaa di leen wax liggéeyu sëriñ Touba rek moo fi nekk de fii moom loo fi def lu dul liggéeyu sëriñ Touba perte la te liggéeyu sëriñ foo nekk mën nga kaa moo xam Touba Mbé la moo xam feneen euh, di soñu tamit ki nga xam ne mooy soldaaru Serigne Touba taaliba Serigne Cheikh Mbacke Mahmadan ndax lii lépp moom la sëñ Masseck Diouf moo ko jiite. waaye moom jiite bi feeñu ci sax nangu cee feeñ dafa jël lépp teg ko si loxol soldaar soldaar tamit doon koo xamante ni bii ku ñime la ku am fit ku am fit si yoonu Serigne Touba bi ndax soo déggee ma ni ko am fit la lépp loo xamante ne bii mbooloo mi ngi koy def soldaar da koy engagé moom ku ko ci fekk baax na ko ci fekk siwul baax na. mais ñi ngi sant yàlla parce que ñëpp fekk si nañ ko waaw may wax ñëpp ñu takkaat laxa saay rek di leen xamal ni lii exemple la liggéeyal Serigne Touba rek moo fi ne buñ ko defee moo fi ne buñ ko deful moo fi ne ñu ne soldaar moom sunu royuwaay la man sama idole la man ndax ba ma ko ñamee di ko toppandoo ba tey réccu ma ko waaw ba ma ko ñamee di ko toppandoo si liggéeyal Serigne Touba ba tey réccu ma ko chaque année lu ma daan def dama koy doublé lépp lu ma def dama koy mënaat ñun daal instant bi namuñu dara boo bëggee dégg rek ndax suñ Touba. Euh, macha allah noo liggéeyu Touba Mbella TV mu mel ne ni équipe bi ñoom ñëpp bàyyi ko nañ Dakar ñëw fii. waaw Touba Mbella TV moom yéen amoo leen morom. yow da lañ ko yaayale yëg nga lool. yëg naa ko yàgg na yéen moom yéenay mujjee juddu euh, xaw ma liñ naan sëñ Touba mujjee woote ëppi donga yéen mooy yéen. yéen da ngeen a mujjee juddu ba pare ñëw sut seen i maas macha allah ndax ku dugg seen site bi li fi nekk ci ay vidéo ak liggéey bu rafet bëri na ñu leen fi jiitu te defuñu ko. waaye loolu tamit santee leen ko sëñ Cheikh Mbacke Mahmadan rek ba tey ñun fi ñu wéeru yéen foofu ngeen wéeru ñoo bokk wéeruwaay da ngeen di dem incha allah. Mhm. macha jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan gis ngeen suñu mbokk soxna yi kàddu yaam solo yi nga xamante ne yëkkati dañ ko mu di soppee Serigne Mahmoudani waaye tamit suñu yaay yi suñu mag yi suñu ñi nga xamante si ni ñoom lañ sañ a soññi ñoom ñëpp ñu gën a takkuwaat euh, gën a laxasaayuwaat xam ne liggéey Serigne Touba rek moo fi nekk comme ni ko daayira ahibaayu Serigne Mahmoudan defee fii ci Touba Mbella am na yeneen ak ñeneen ñoom si noonu lañ koy defee waaye lépp lu mën doon nañ ko def te jëmmi Serigne Touba rek tax ku am juróom ku am ñaar dërëm am téeméer ku am fukki na andi ko ñu booloo dajale ko ngir mën a liggéey Serigne Touba nga xam ni ay millions ñoo ko defar waaye millions yooyu nekkul loo xam si ne dañ ko dem sàkk ci benn barab andi ko nit ñi ñoo boole seen fukk ak seen i ku nekk am la nga yoroon nga andi ko ñu boole ko ngir mën a defar liggéey bi am liggéey nag saa boo dee toog di sémbu naan ay nanga moo koy def ci ay millions rek jàppal ni doo ko mën a def da ngay engagé wu rek jóg dox jëm ca bu yeggé rek nga santé ko suñu borom bu agul tamit nga xamné ne du sa yaafuus la nga yéné won moy nga defar ko bam yegg kon nak ñi ngi leen di sant baax yéen waa daayira Ahibaay Serigne Mahmoudan ci tambali gi ngeen tambali liggéey bu am solo mu mbar mi té annoncé ngeen ko sank seen biir kàddu muy liggéey keur Serigne Touba gi ak juma ji nga xam seen seen yéné moy ngeen def ko juroom ñaari sorol lool nak ñi ngi ñaan Serigne bi Serigne bi tamit dégg na leen yalla na leen suñu borom taxaw ba ngeen agalé ko rabbi a'udhu bika min amazati sayaatini wa a'udhu bika rabbi an yahduruni مناكع الله التي قد أخذ آدم موسى يوسف محمدا مناكع الله التي قد أخذ آدم موسى يوسف محمدا مناكع الله التي قد أخذ قد أخذ آدم موسى يوسف محمدا ثم حليا وسليمان حلا هوا سفورا وصالحا بلا خديجة عائشة للمصطفى فاطمة بلقيس زينب كفى خديجة عائشة للمصطفى فاطمة بلقيس زينب كفى خديجة عائشة للمصطفى فاطمة بلقيس زينب كفى subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin. ñu ngi ànd ak sëñ Moustapha sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu Diop. waaw ñu lay delloo ziar bu baax yëkkatil micro bi. waaw ñu lay delloo ziar bu baax. sëñ ah, Omar macha allah Moustapha ngeen bokk nekk ci daayira Ahibahi Serigne Mahmoudan tey mu nekk bis bi nga xamante ne si ne mooy cappaandaw bi maanaam immigration bi jébal caabi ji Serigne Cheikh Mbacke ginnaaw bi ngeen ko liggéeyee mbaar mi ba pare ban yëg-yëg nga ci am. onze billahi mina seytaan rajim ñu ngi lay nuyu bu baax di wax ne ñun suñuy kàddu néew na ci lool. Mhm. ndax xol bu sedd guy. ndax ci gàttal rek ñu la ko mën a gàttalee danoo nekk ci biir daayira wi bokk kooku suñuy suñuy kilifa nekk ci biir ñun suñ borom natt na nattuñu ñu nekk ci membre bi ñoo xam si ci ñi gën a néew ay at ci lañ bokk. moo tax daanaka sama xol dafa sedd ba maanaam mënu ma cee ba pare ñu yëkkati tamit ay poste de responsabilité yoo xam ne si jël la ko dénk la ko. Mhm. en tant que xale bu ndaw. Mhm. kooku ñu ngi ci sant yàlla baax a baax. Ah, di am mbégte bu baax a mhm. baax. di wax ne ubbite mbaar bii nii suñu xol da cee sedd lool. gannaaw yi ba ki nga xam ne si moom moo nekk soldaar bi. di nekk di. Eh, sëñ Malick sëñ Malick Ndiaye. mu jiite mbooloon mi. ñun dañoo amul fayam. ndax koo xam ne si day topp day nekk ci kanam rek bu dee jëf mu ne nii. kon ñun daanaka mën naa ne dañoo topp ci ginnaaw rek. Hmm. ndax bu dee lu ñuy war a jëf la moom daanaka jëf na lépp dañu yóbbaale rek. Hmm. kooku nag ku am xol boobu noonu noonu noonu xol boobu noonu ku ko am man a boot mbooloo moomu noonu te luñ ciy def sa alal du ko fekke sa xalaat du ko fekkee kon kooku amuñu lenn lu dul di ko sant bu baax a baax di ñaan sunu borom yàggale ko fii lool sunu kanam. liggéey boo gis rek. Hmm. am na commencement am na yemukaay. mën naa ni yamukaay bi sax dañ koy tudd rek waaye amul yamukaay yoonu sëñ bi moom amul yamukaay dañuy liggéey rek ba keroog ñuy dee ndax ba ñu yàlla natoo rek indi ñi ci àdduna bi ñu nekk ay góor yàlla boobu la noonu xam ne moom liggéey bi ba keroog si moom moo nekk construction bi nga xam ne si moom mooy mooy mbaarum Touba Mbella nga xam si waa soppee sëñ Mahamada ñoom ñoo ko liggéey bu ñu xoolee début bi lépp lépp lépp lépp mi ngi toll ci 5 millions 57 mille 500 cinquante-sept mille cinq cent ah, noonu la toll waaw di santaan nag bu baax a baax kenn koo xam si tamit wala ñaar ñoo xam si dañoo sës ci ñun muy sëñ Masek Diouf mi fuñ gesoo gis ko mu ñuy conseil bu baax ak sunu ni yaay Baye Fall bi nga xam si moom moo nekk moom moo yoroon liggéey bi waaw di ko sant bu baax a baax ak sëñ suñu Baye Fall bii waa ba Assane mii ñu ngi koy sant baax a baax ñu nekk nit ñoo xam ne si ay taalibe lañ xooluñ dara mënoon nañ ne ah ñun bi nan lay demee ñun dañuy ay kii leen ay ouvrier leen naan ma naan waaye dara dañ ne lépp def nañ ko addiyee sëñ lépp addiyee sëñ kon ñu ngi leen di ñaanal loolu noonu ñu def noonu suñ tuwaa mi nga ne si moom la ñuy liggéeyal yàlla na ko gis bu ko gisee ba noppi suñ borom mi nga xam ne si moom mooy yëf jaam yëpp yàlla nañu suñ borom fayee loo xam ne si maanaam ëllëg maanaam suñu njaboot danañ ci am kontaan bu baax baax ñu ngi tudd bu baax a baax di jégluwaat bu baax a baax di ñaan euh, télé bi Touba Mbéyel TV macha allah gis nañ taxawaay bi gis nañ njiite ji yàlla na suñu borom defal leen tamit lu kawe seen jot. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam se ne yéen a doon ànd ak ñun ci Touba Mbella TV comme ni ñu leen ko waxee woon rek ci immigration mbaar mi nga xam se ne moo di mbaarum Serigne mi nekk fii ci penc mi te daayira Ahibahi yi euh, bi yëpp ko defaraat ci karo ak peinture ak mbaar moom yaaññi gis ngeen kilifa yi ñëw nañ ci immigration bi jébbal a ne ñoom ñoo def initiative bu mel nii di daayira soppee Serigne Mahmoudane kon lii mooy li nga xam si mo moom loolu lañ fi jëlee woon tay ànd ko ak euh, sen sen bu mag bi di Touba Mbella TV ñew fi tay ci biir village am mu di Touba Mbella Mamour Diop ci caméra bi ñu ngi leen di sante baax di leen salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ak Touba Mbella TV ngir ngeen mën di jot sunu ay vidéo en temps réel da ngay daal di bëss fii ñu bind abonné wu nga daal di bëss tous cloche notification bi dënd ak mom rek lepp daal di yem.